foo liker la vidéo gars yi yomb na trop juste bës ci bouton j'aime bi daal di partager ci seen i jegeñaale moo xam statut wala groupe whatsapp yi da ciy baax itam ndax ñëpp ñi nga xam ne waxtaan bi ñu mel soxna leen ñu mën cee daal di euh, mën a bokk jaajëfal Abdou Fall Regina Gomez ak euh, Masey euh, Faye borom rouge vert <laughs> maa koy nuyu. Masay di ko nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ak mbay nee wax dëgg yàlla mukkum bon j'ai pas trop compris mais wax dëgg yàlla mukk moom je sais pas euh, lu mu bëggoon wax foofu donc je pense que mbay après dina ñëw gën ñoo leeral ci euh, xalaatam gi nga xamante ni moom la bëggoon a partager ak euh, nit ñi Abdou Fall di ko nuyuwaat Régina Gomes nee na focus 2024 rek ñu waxtaanee jamono ji li nga xam ne moo di déclaration de politique générale bi nga xamante ne le premier ministre Ousmane Sonko maa ngi leen ko wax sànq ne moom la war a def ci assemblée quand même une assemblée assez assez hostile parce que tey <laughs> suñu xoolee euh, ni nga xam ne noonu la assemblée nationale composé woo itam donc mun naa wax ni euh, suñu jëlee député yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, Pastef kese ñoom am nañ ñaar fukk ak juróom-benn la ñu am peut-être ak ñi nga xam ne seen i alliés lañ war nañ am ay peut ay trente ministres trente députés au plus donc jamono ji mën nañ wax ni assemblée nationale bi nga xam ne moom la premier ministre Ousmane Sonko war a fekk du nekk <laughs> dina nekk assemblée nationale bu hostile mais est-ce que loolu war na nekk euh, motif valable pour que su defee déclaration politique générale ba pare ñu daal di engagé li xam ne monsieur de censure bi ci loolu dépassement ci wàllum xalaat euh, politique loolu ñu ko daal di mosu rek ñu yem ci euh, liggéey bi nga xam ne moom. asalaamaaleykum donc ñoo ngi xaar sëriñ Mor na ngeen def. waaw sama sëriñ. na ngeen def. waaw ñu ngi leen di nuyu di nuyu koo xam ne rek yaa ngi suivre internet bi en waaw di ñaanal réew mi rek comme ni ma ko faral defee suñu borom tabaraka wa taala ñu yore jàmm te dara la ko déewul yàlla dellu ñu jàmm yàlla tasaaru jàmm ci Sénégal. amiin amiin amiin. waaw xam nga réew moom politiciens yi ni ñuy doxale moo doy waar. Mhm. ñëpp la nag. Mhm. ñëpp la mais nag fi nga bi may wax yow nii. Mhm. Ousmane Sonko. premier ministre président Diomaye. président tous les sénégalais son excellence. Mhm. ni ko nit ñi tànnee bokkul ak nit ñi tànnee woon Macky Sall de. Mhm. Macky Sall dem na deuxième ak Abdoulaye Wade deuxième tour. Mhm. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax a baax. kii nag premier tour la jël réew mi loolu il faut nit ñi xam ko. parce que Sénégal yi dañ koy yàkkamti gis ay jafe-jafe yoo xam ne am na si réew mi te suñ leen fi bàyyiwaatee musiba am. ñu jële leen si ñoom ñëpp. ki ma dégg nga tudd ko léegi. Mm-hmm. moom xam na ne buy wote par force lay wote par force li gouvernement bi teg moom xam na ko. Mm-hmm. su ko deful am na yet woo xam ne mu ngi leen di xaar ñoo ñoo ñëpp waa ensemble. Mm-hmm. xam nañ xam nañ li xew. dañ leen fay jëlee sanctionné leen sanction bu métti sax premier tour képp koo xam ne dégg nga tubaab xam nga ne premier tour du ay caaxaan. Ablaye Wade ni ñu doyaluñ ci moom moo tax mu dem deuxième tour. président Abdou Diouf. donte ne socialiste ku ko xam-xam ne depuis Senghor ba léegi dañ fay yàgg kaar. Mhm. te teewul président bu Diouf bi muy dem yóbbu nañ ko ba deuxième tour. Mhm. mais kii premier tour lañ ko éliminer. Mhm. kooku kooku am njàngat la. na nañu xam na ñoom yoratuñu réew mi nag te te nañu noppi. suñu noppiwul li leen ci fekk xam nañ ko. te ñun xam nañ ni ñu démarré woon ñoom ñëpp ku ci bari dama ne la. Ndiaga Ndiaye lañ doon dugg bii ñëw Dakar. Mhm. ak tata yi. Mhm. diggante bi dafa gàtt nit ñi dofu ñu gën a jàpp ñu xam ni di xaw si réew mi man gis naa si ñoo xam ne doon dox di muur ay jàllaat bi leen doon sol dox doxee mairie ba assemblée nationale. Mhm. pompier mairie googu lañ doon doxee ba assemblée nationale ñu ngi lay dégg. loolu ñu wax lu suukar baraata ak kaas. mais seen daanu bi daf leen a bett te war leen woon a bett lee parce que ñoom ñi nga gis nii. président Macky Sall dafa leen da ngeen da ngeen léegi dama leen yóbbu liste départementale ñi daanu gàngari ci kanam Macky Sall di yuux naan par président mu ne mu man noonu da mun a dinaa gagné département bi xoolal loolu ba président sarax leen yóbbu leen liste nationale mm-hmm. bu leen président bàyyi woon seen département boobu xam nga yow yow gis nga département yow dañu leen perte agression yi léegi yow bu bu doon national liste nationale ñu leen dugal fan la ñuy demee assemblée mm-hmm. yalwaan boobu nu ñoo yalwaan Macky Sall ci leen la président Soroxi dugaleen nas na ah ñu naan ko moom gis nga ni ñuy défendre parti bi lu ne ñu ngi koy def nangam ndànk de soxla Macky Sall Macky Sall yóbbu leen nas na mais seen aqulay tàndat seen région yëpp dañ ko perte mhm. waaw kon ñu amatuñu majorité amatuñu majorité nañu noppi laa la wax bu ñu noppiwul nag yéen <laughs> Ah, non euh, euh, am amuñu peut-être majorité populaire majorité populaire maanaam li li ànd ak ñoom ci seen gis-gis ak ci seen euh, doxalin ci askan wi peut-être ñi ànd ak ñoom bëreetul noonu mais tey suñu demee assemblée fa nga xamante ne mooy pencum ndaw réew ma comme ni ñu koy daal di waxee foofu nag ah, ba léegi ñoom fi nekk majorité gis nga rek am nañu bari ñu yaakaar bi ensemble bi ubbi ba ñuy daw dem ba chef loolu yow mm-hmm. lu xamante dama ne la ñi sama na lañ daw dem parce que après nañ wax allo oh malheureusement ah euh, que les caprices du réseau donc ñoo ngi jégalu ci moom bu baax a baax a baax euh, di ko jaajëfal sëñ Mor euh, ak diwaan nga may woote di diwaanu Louga di jaajëfal ah sëñ Meng moom ma nekk ca Mbacke bari yi ñoo ngi koy nuyu di ko jaajëfal ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu teewlu salaamaaleykum. waaw ah, salaamaaleykum. Diallo na ngeen def. jërëjëf maa ngi lay ziar bu baax liggéey. naka journée bi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di gaa yëpp rek. yàlla sant yàgg bu baax a baax a baax waaye jërëm. Hmm. jërëm li naan képp ku ñu fay sa bor nga mer la nga lebloon moo baaxul. <laughs> lool de olof Ndiaye ko wax. Ousmane Sonko ku Ousmane kuy waxal yàlla xam mu sa lebal mu sa lebal euh, euh, pouvoir lu baax. ah déet waay. lu bon de la leen lebal. non mu sa lebal pouvoir lu baax dañu wax dëgg te yàlla yàlla dëgg la bëgg a dégg. Hmm. nit moom da wax dëgg te yàlla tax booy booy booy dee na nga dee ci dëgg. Hmm. chaque jour da nga gis muy luy daane pouvoir bi def. ngir Mbaye Sané la xuma mbiri Modou Sané mhm. chaque jour di taxaw ci kaw taabal bi leen def ko mos ñoo xool loo xam intérêt Sénégal heure bu ñu see intérêt Sénégal yi lànk ni luy baaxul Sénégal mhm. te lañ doon bañ moom lañuy topp ni tey mhm. kon maa ngi lancé un appel seulement képp kuy député moo nekk APR wala PDS lu ñëw nañ ko rejeté nu changé nu changé nu changé kii bi premier ministre bi yëpp nu daan parce que loolu mooy avancement Sénégal gis nga Sénégal yi ñu ndox boo kéem ko mais Sénégal xam ne ñii mënuñoo dem. ñii mhm. demuñu demuñu dikkuñu yow lu mat yow ba léegi kenn taaratul réew mu xam ñëppay jooy ba ba léegi ah di nangu ay place yi di wax ay xaseeg nangam nangam. Mhm. loolu ban réew la. Mhm. yow ñi ñoo mën a gérer dara nekk di def ay monnaie keneen yu ma xam mu lay fotaw. ah wala ñu noo tax nu fal prémices ay prémices ñëw fi ay dem loué ay hôtel ñu leen loué ko. taxaw di fotaw lu ne mais ñu fan lañ jëm mais li buñ demee nañ leen rejeté ñoom ñëpp. bu ko defee nu nu nu kànc laa ñëw mu de mu jeex Sénégal jëm kanam. Mhm. waaw beneen bi tey ma ñëw si Mimi Touré jëwrin mhm. réew mi moom boo bëggee dee képp ku ñu jeex gis say problème ak ku manti doon nag. Mhm. ndax état dafa am doole. man Mimi Touré mii ni wax ak yëpp fii man ne ñoom ñëpp a ay sàcc leen. déet. ñoom ñëpp lu leer laa lay wax. Mimi fi mu jaar yëpp mënut a lépp mënut a nekk gongo dañu wax dëgg te yàlla tax lekk na ba doyal. Mimi Touré milliardaire la. Mhm. nan wax dëgg ku wax yàlla mais fu mu jëlee milliard. mais loolu ay sàcc lépp ñoom ñëpp ay. sàcc mais moom moom kenn déggul ne am a ah, ah? yor na ay milliards. déggu leen ma. ma kenn kenn kenn déggagul mu ne moom yor na ay milliards. dama ne Mimi Touré si boobu moom milliardaire laa wax. ah bon. ah mais Mimi mu doon. lan moo tax mu dem Amérique yéen rawal seen xaalis dox dem mhm. ma nekk ne ay ku ma giñ dara ak na ma na ma njëkk a porté plainte man maa ko njëkk a giñ. Mhm. man na ma njëkk a woote porté ma plainte. parce que mhm. nañu leeral moom ay milliards fan la ko ñoom ñoo ñoom ñoo ku yor xaalis ñu kii nañ nañu génne milliards yi ak yooyu fan la dugal. loo koy mën a jurul di mën a nit ñi. ah waa Pastef bi tamit ñoom xaalis yi nga xam moom la doon campagne ñu wax ñoom fi ñu ko jëlee ñoom it. c'est affaire il faut muy leer quoi Sénégal yi nañ leeral Sénégalais yi mais ñii ñëwuñu pour pour jiite Sénégal ñii ñoo ñëw pour delloo ginnaaw Sénégal. Hmm. moo leban démocratie Sénégal si loolu dellu na ginnaaw xoolal dem Macky Sall. Hmm. Macky Sall bi ñu demee gars yi dàq moo ñu defaral leen ko. Hmm. te noonu duñ dem foofu bi ñu demee Amérique li tax ministre bi jox ko loxo peut être ministre bi jox Macky loxo looloo tax. dañ leen a rejeté Macky nu woo Macky Sall Macky Sall ñëw dimbali leen au lieu ko sànni xeer. Macky Sall moo baax Sénégal cooree fi nekk rek nag. waaw maa ngi merci di ziar baax def seen liggéey quoi. Mhm. waaw. jaajëf merci merci. allo <laughs> allo oui. ah Régis euh, Diallo dem na jox ma keneen 77 810 90 90 ah li mu wax euh, Pape Ibrahima Faye commentaire bi. Ah, naa ci dikkaat ndax wax nga ne euh, jamono ji ki nga xamante ne moo di Mary Teuw Niane ak madame Mimi Touré dañ leen di accusé ne dañuy dañoo dañ leen de épinglé loolu lépp ci salteel der la salaamaaleykum yàq der la loolu loolu loolu moom Ibrahima loolu xalaat euh, Binta donc euh, moom itam ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal allo oui oui euh, honorable